la ca dolliku nag mooy kàddu yi ma yóbbante woon ci eh, sëriñ Bakio Faye mii mooy ak cant ak ngërëm ndax biig barki bi la ma njëkk a mooy keroog bi sëriñ Bakio yëkkatee caabi jumaa ji ne man naa ko ko jébbalal sëriñ bi ndax moom dañ ko doon liggéey te ab liggéeyam àgg na kon naa ko ko jébbalal sëriñ bi boole ci àddee ñaar téeméeri million ne naa ko ko jébbalal sëriñ bi ne da koy sant ci liggéey bi ko sëriñ bi doon liggéeyloo sëriñ bi nag yóbbante waan ba ci moom ne ma maa ngi koy sant di ko gërëm ndax moom sama digg moom dafa jiitu jataay bi dafa yàgg neen tegal ma ci ne moom dama am ci moom yaqin ndax positif neen dafa am ci yaqin te loolu man mi wax ak sëriñ bi ci biir xam naa noonu mu la ko waxee rek yàgg naa ko xam ci moom mu ne ma dama am ci moom yaqin ne ma liggéey si liggéey suñ tubaab bi itam li mu ko jaral ak ni mu ci nangoo sacrifice jëmmam xam naa ko waaye nag nee ko la ma ko waxoon rek neen dalee bàyyi ak suñ tubaab bi ngay jëfal ndax nee dara yow dara wëru la lu may sant yàlla ak sant Sëriñ Tuubaa neen bu ci dolli dara santal yàlla sant Sëriñ Tuubaa ndax li ñëpp di sàkk mooy ngërëmu Sëriñ Tuubaa nee na wóor kon làq nga ko ci liggéey bi li ma wax seere la ci kanam ay dit nee ko li ko war mooy na sant santale te xam ne moom moo war a sant ndax lu mel nii ku yàlla def mu sottee ci say loxo nee na dara wóor la mooy fotool di sant Sëriñ Tuubaa kon sëñ bi nee na mi ngi yeesal kóolute gi doxoon sa digg moom di yeesal positif bi nga xam ne xam na ko sa digg moom tabam la xamee ba tey dara mosu cee wàññi ko di la ñaane Sëñ Tuubaa neen nam la ko waxee woon rek wax la ko ci làmmiñam nga dégg mi ngi ñaan Sëñ Tuubaa dëpp la kàttan dëpp la wér-gu-yaram dëpp la kàttanu jëf ndax nee li nga jëf ci jumaa ji te bëgg ko tudd xam na ko waaye nag nee na ka ngay jëfal mi mu ngi koy seere ndax seere si nit solo jëf naa nangam wala naa jëf nangam loolu yoonu sax ni ko waaye nee na Sëriñ Tuubaa ma tax ngay jëf neen teg nañ sa bët ndax li nga jëf keroog li li li nga jëf te nit ñi xamuñ ko moo ko kon mu ngi lay ñaan ci barke suñu Tuubaa euh, mu mu mu yàggal ci kanamu liggéey bi ci kanamu taalibe bi kanamu mbooloo mi ndax kat nee na nee na ma itam moo wax ne ne am nga tawfeex ndax tawfeex ji nee na njëkkoon nekk représentant waaye nag lii moom yàlla def na ci sa loxo la sottee. liggéey bi moom yàlla def na ci sa loxo la sotte ñaan looy doy na sëkk nag résultat sa digg Sëriñ Tuubaa mu ne ma nag kon la jotti loolu xamal ko taalibe bi jëm bi li jëm ci saytu jumaa ji it mu ne ma bañ a tàmbali liggéey bi euh, ci Cheikh Mouhamadou Lamine àndoon deqee bi Cheikh Sidi Mokhtar nga ànd koog moom bu Cheikh Sidi Mokhtar ñëwee mu jiital ko ci teg ma ci tegaat la mu ne ma nag kon ni ko àndi woon moom. moom mooy borom liggéey bi jiital na ma ci teg na liggéey bi ci sa loxo ni ko doon saytoo démb lu ci war rek lu ci war nga ànd ko bokk teel bi mooy saytu ko ci wàllu entretien ak defar ndax xam ngeen ne liggéey bi dafa rëy la koy saytu yombut nee na loolu itam indi indi indi caabi yi nee na ma jébbalaat ko neen daal nañu ko yàlla boole ñu nañ ko àndiwaat noonu ba ci kanam suñu ñu ngi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñépp di ñaan itam li li sëriñ bi di séentu ci li sëriñ bi di séentu ci liggéey bi li sëriñ bi di séentu mu war a nekk ndamu lislaam yàlla na demee noonu mooy dara ci luñ bëggul rek bañ ci am te moo ci am it nag ndax lii. Serigne Touba li ko ñoroon rek mooy julli yi àndandoo nekk benn te feeñee na ci jataay bi kon lii itam nii mu demee ndax xam ngeen ni fii liggéey bi dafa rëy ndax des na des na yeneen somb yu rëy yoo xam ne Serigne bi mi ngi ci te dana leen wax kañ la ko bëgg a tàmbali mooy salle de conférence boo xam ne war na am fii ci Massalik ak institut bi nga xam ne war na war na fi am loolu ay liggéey yu rëy rëy la yoo xam ne. Euh, yoonu murid moom xam ngeen ne lu àgg rek ñu ñu ñu ñu tàbbiwaat wàcc leneen ndax liggéey tubaa Tuubaa nopp noppalu ndax as Cheikh Ibrahima Fati euh, Sëriñ Tuubaa da ko gërëm ay yoon bu ko wàcce mu ne ko de yaa ma njëkk xëy te wàcce gu ba tey kon li fi wàccoo rek du ma wàcc kon yeen tam na ngeen xam ne liggéey Sëriñ Tuubaa amul wàcc wa'bud rabbaka hattaa ya'tiyaka al-yaqiin liggéey Sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadou Mountakha daa wax ne. li ko fi yëkkati mooy yëkkati mbirum Sëñ Tuubaa nee na mbirum Sëñ Tuubaa nag mooy i'laa kalimatillahi al-ulya te te loolu mooy laa ilaaha illallaahu muhammadu rasulullah kon nag ngir bañ a guddal ngi tàggoo foofu yéen di ñaan euh, suñu borom dimbali ñu euh, kattanal ñu kattanal leen ba yaakaar jure ji sëriñ bi am ngeen mattale ko nu kawe njortam ci barke Sëñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala maa ngi jéggalu de nga wax ma teg ci dara waaye lii nga ma jox delloo ma ko man ak mbokku taalibe yëpp nungu nañ ko pas-pas bi lu toll ni dee deewee mënu cee yokk ndax li ma am lépp jox naa ko Sëriñ Tuubaa te li may amit lépp dinaa ko ko jox waaye na ma la ko waxee woon rek dinaa ko waxaat. ne ko lii ñëw ci suñu kanam yeneen i liggéey duma ko ci wor duma ko ci wax lu dul noonu duma ko fen duma ko sàcc luñ ma jox dinaa ko ci def lu ma amit dinaa ko ci def li ma ko waxee woon ruug yi rek laa ant laa xamul moomuma ko waaye fit wi ak jom gi dinaa ko ko jox ba dara du ci des jërëjëf Mbàkke yow maa ngi ñaan yàlla ñu nii ñu ko ànde ba joxe caabi ji ñu àndaat ko ba joxe yeneen i caabi ci barkeb Serigne Touba na nga xam ni daal man ab soldaar la soldaar nag te ñaanu ma yàlla it retraité ñaanuma yàlla it noppalu waaw man daal na ma dal rek laa la maam Cheikh Ibra nekke woon rek noonu laa bëgg a nekke na ma dal rek ndax man sama maam baay Fall la sama baay Baye Fall la liggéey rek la ñu xam kon maa ngi lay gërëm ñu àndandoo ko ma lay maa ngi lay ñaanal ci kattanu sëriñ Touba ak màggu liggéey bii loo bëgg a def yal nanga ko def te nga te ñu ànd ko te nga defe ko sa sago te mu ànd ak ak gudd fan ci barke ci barke borom Touba jërëjëf sëñ ko defoon imam yóbbu ko Amérique sëñ Mourtala Ba taxaw sëñ mu jiite leen ah?